yow de bu fekkoon ne dese nga tuuti ndaw dëgg la deseetuma ko ndax ku passé soixante ans dootuloo xale dama naan la nga génn réew mi ñëw fii ci réewi nasaraan yi lam ci jublu nag xam naa mooy ñeewante ma nit ñi ñeewante képp ku yewoo ci réew mi te am xel di ko jëfandikoo loolu nag yaakaar naa ne bari na ci ay bërëb sax yu ma ko wax kon dafa mel na ku sàq mi sama lañ ci ndax loolu wax naa ko ba tàyyi ci ay vidéo ni réew mii moom wóoratul nit di fi yewwoo bés boo xëyee suba ci xatar ci danger nga nekk maanaam ci wax waxinu wolof sa bakkan a ngi ci xottu nen li tax ñu wax ko nag danañ leen ci limal ab lim donte duñu wax lépp waaye danañu wax yi nga xam ne xëy na moo ci ëpp importance ku ko dégg xam ni kon réew mi yeewoo fi wóorul réew mi fii mu toll nga xam ni ay ndawal yoon waroon a protéger ay citoyens sàmm seen kaaraange muy ay policiers ak i gendarme mën nañ leen a jox ay ordre jox leen ndigal ñuy dóor yi nit di leen sànni grenade di leen mënote di leen teg ci ay oto di leen weq ay rangers weq ay façon yi bot di leen doori lii fi courant di jàpp di tëj réew moomu ku fa yeewoo di loolu mën laa dal ci lan laaj sa xàq ak sa yelleef mooy marche ki démb laa koy wax ma ni làmb ji nga xam ni moo fi weesu fan yi yóbbu nañ fa service d'ordre boo xam ni ña ko fa ña fa nekkoon a ko wax nag service d'ordre kaaraange guy sàmm ña demoon ca làmb ga ca làmb ja waaw lu tax doo ko defal ki nga xam ne kii citoyen la moom it nii dama bëgg a marche dox ci mbedd mi wax lii ma naqari nga ne ko awma ku la ku la encadré loolu benn la bi ci toog mbokk yi réew moo xam ne mii ñi nga xam ne ñooy àtte yoon dañuy ŋàbb seen big rek tiimale ko doomu aadama yi pour un oui ou un non soo nee miix ci seen yi bopp ci seen neex-neex waaye ba tey ci kaw ñu jox leen i ndigal loolu la nuru nag awma ci yàqiin à cent pour cent waaye mel na ni façonu àtte yi ak àtte yi fi jaar diirub at yi passé nga seen fi xejj xeen fa la seen danga xam ni kon mbir yi am na lu ci laxasu kon boobu réew ku fa yeewoo war ngaa tiit xalaat génn réew ma ndax kat réew moo xam ni atte nday réew mi loolu ñu wax constitution ñi ko jàng at yu bare lool jàngal ko ay nit ba ñooñe di ko jàngale ñooñu ñeme nañoo taxaw tey ni baax na ëllëg ñu ne bon na ci benn ci benn tomb bu bokkul exemple bi ma leen ciy jox nag duma tàyyee tudd turam moom Ismaïla major Fall démb ba mu neexee ci boom ci genn wet woon na lii Macky Sall di jéem du dëgg du yoon moo ko wax ñu woo ko dugal ci biir gouvernement am ak la mu àndal ci xéewal yépp mu ne lii Macky Sall di jéem bu jéemee leneen lu dul lii deful la ko war loolu bu ñu nekkee ci réew moo xam ne ay juriste ay nit yoon ñu ko jàng di ko jàngale ñeme nañu xëy tey jii ni dafa dafa vert ñu takk ci ñaari waxtu rek ñu ne déedéet vertul dafa xonq coy moom réew wóoratu la nekk réew moo xam ni ca cosaani senegaal kooku ñuy wax géwél ci ñi ëppoon valeur ci réew mi lañu bokk di ànd buur di leen xelal xel mu rafet waaye di leen way seen cosaani seen jaar-jaari maam ya ngir ñu am jàmbaar xam ban njëkk ak yiw moo war a dox ci diggante buur ak askan wa nga xam ne wii moom la jiite looloo doon am ci buur ak géwél géwél da daan ànd ak itam ab sëriñ amal ko njëriñ lool ci xel mu rafet ñu boole xam-xamu diine ja ak xelum xel mu rafet moomu muy jur dara géwél da daan ànd ak it boroom alal di ko xala xamal li jekk te yiw tàmbalee ci ay mbokkam ay dëkkandoom néew ji doole yi di ko tagg di ko woy ci jëf yu rafet yooyee muy def ngir xol ba gën a toj ci jëf ju baax ban géwél ngeen fi gis ci réew mi tey mbokk yi muy def loolu dañoo fas bañ nañ ko ba dem tuddeetuñu seen bopp géwél communicateur traditionnel lañu tudde seen bopp lan ngay communiquer communication amatu fi ñépp soppaliku nañu ay cogg ngeen baal ma baat bi ay macro ay nit ñoo xam ne ñii seeni maam bu ñu dekki woon ci njàmbaar gaag njom gaag gor ga dañ leen di tër rendi leen ba pare dem tëddaat muy réew moo xam ne mi it mbokk yi diine ji dafa salfaañoo jàllaañoo ñi ñu fi yaakaar ñuy gàgganti nit ñi di leen wax li yàlla wax li yonent bi wax ñi ñu fi yaakaar ñu mel ci melokaan woo xam ne ku leen gis sa xel dem ci yàlla ñooñu ñoo gën a bëgg àddina tey ay alxuraan walla xadis bu ñu ko jëlee di ko wax lañ cay jublu mooy naatal seen mbirum bopp war gën a noot nit ñi looloo fi ne loolu képp pa fi ne leneen néew fi boo leen gisee ci seen mbedd wala ci seen kër wala ci jotaay bu mu mën a doon tuuti nga leen di mën a xàjjalee ak buur bu falu gong gongarool ci kaw nit ñi ku leen xool tuuti gën naan puupe yu ñu yu ñu solal yére la orne leen dem nag ànd ak buur ya di noot askan wi bu buur di jalgati doo ko ko wax déedéet dangay faf sax di ko ko naatalal dégg naa ci sax ku ni bu buur reyee ku buur rey lislaama la rey ay waay ñee ñàkk jom te kenn du wax nag kenn du wax ndax jàpp nañu ay nit au lieu ñu jàngal leen yàlla jàngal leen yonent bi def ci ñoom jikko yi lislaam yu kawe ya liñ leen xamal mooy ñoom daal duñu kenn ku kenn war a tudd boo ne ñoxor njaay ñu yabal la leen ñu mel ne ay xaj yuy baw ne la dann di la saaga di la xas di la tànc di la sosal sax bu fekkee ne ñeen jox nga tuuti xaw a ñàkk fulla ak fayda ñu dugg ci sa kër salfaañe la ay nit ñoo xam ne ñi seen bopp yi dara nekku ci dugalu lañ leen ko ci ay caaxaani àddina lañ leen gëmloo won leen ko ca loolu la ñuy dund ba tey mbokk yi ñu nekk ci réew moo xam ne mii alquran jii nga xam ni moom mooy suñu wéeruwaay àddina ak àllaaxira wax yonent bi sallallahu alayhi wa suñu gindikukaay moom la nit ñi di jël di ko fene di ko toroxal di ko jàngi njàngin moo xam ni kenn xamul lu mu doon di ko méngaleeg loo xam ne lii yàllul ci ñu méngalee ko ko lu ko gën a baax a ngi fi lu ko ëpp njëriñ a ngi fi ñu jàpp alxuraan di ko ceppet ceppetee di mel na ay soccet yuy foraatu boo waxee aaya bi nangam boo waxee aaya bee nangam aaya bi boo ko waxee fukki yoon ak juróom-ñett nangam yooyu mooy yan lii lañuy dund léegi nit ñi amatuñu benn xasd amatuñu fas pasteef réew moo xam ne mii mbokk yi bokkaale moo gën a yomb fuuf yëkkati kaasub attaaye guux ko tegaat fële ci wax yi ci jëf ci jëfin yi ci nekkin wi te léeg-léeg du sama kalaas gi nga xam ni seenum njàng soriwul déedéet day am ku ñuy yaakaare sax ci xam-xam mu taxaw di bokkaale bokkaale gu bon gu ñaaw dégg naa ci démb loola lu ma doon topp rek ba agsi ci la koo xam ni kii xawuma ku ko gënoon a jàmbaare ci xam-xam fii ci réew mi ñu mu fi gindi kenn xamul nu mu toll kenn xamul nu ñu toll mu taxaw naan ku naan maa yàlla loola loola di ko jéemal laa yil indi ko ci nee na garab ga ca wax Moussa nee na garab gi ne moo ko ne yàlla maay yàlla ka nga gàttal gé dégginu alxuraan wi te pourtant day li mu tafsir ci alxuraan kenn xamul nu mu toll moo la gën a xam ni la muy wax du noona réew moo xam ni ki ñu yaakaaroon ci diggante sa diggant ki nga yaakaar sa digganteek yàlla nos na buum ci bakkanam jox ko nguur comme xuusmaa ñàpp fu ko neex jëme ko réew moo xam ni mbokk yi citoyens yi nekkatuñ ci sécurité bés boo xëyee suba rek xeetu insécurité yépp nga nga jàkkaar lool ñuy foqati sa alal di faat sa bakkan di la àtte ñàkkal di la sat satoo di la jaay doole di jalgati sa xàq te li bii rek boo ci demoon ba nga tukki lu mu gàtt-gàtt danga nga dajanteeg ku lay won ni la man mii maa la ëpp sañ-sañ ci réew mi te lan te ni ba mu sol dong moo leen wuutale boo dikkee ci dundin wi nag foofu la wullee ñaay tapage nocturne baareew yoon tëgg rëng rëng rëng dikk teg say chaise teg sa bâche yokk sa mikro ba mu sës bu ñuy waxante ca bâche ba boo jëlul sa gémmiñ këpp ko ci noppi ki ngay waxal du la dégg xamuñu sax wàññent gi loolu di wàññi doomu aadama xamuñu wàññent gi lu bon la ci nit nga dikk ne fanax ci turu diine wala ci turu aada te ki nga xam ne yow yaa ngi koy bund xataal di ko teg loolu amul fenn fu ko jooyee bu ñu waxee ñu ne dañ laa jox autorisation waaw autorisation boobu day su ngeen yeewu woon tuuti gis ne kenn ñemew koo joxe buntu gër gouverneur wala buntu préfet préfet gouverneur ak commissaire de police kenn ñemew koo def seen buntu kër man suma ma tolloon ca at ya damay ñaan autorisation dem ne ko déjj ci buntu kër commissaire ba xam soo waxee ma ne ko déet comme nag ñeñe ñeneen ñi ngi koy dékku dékkul loolu yow mbokk yi réew moo xam ni koppar boo yor amalatu la njëriñ ñi nga xam ni ñoo fi am saleer njëg yi daw di làbbali tax na mënatuñu ci dara ci seen salaire yooyu buñ leen waxee ne leen ci Sénégal gi jàpp nañu nit muy liggéey huit ba seize di ko fay fukki junni fan yi lañ ko yokk ne ñi def nañ ko fukki junneeg juróom ñeent muy ASP nan nga mën a yëkkatee fukki junneeg di ko fay nit ci réew mi réew moo xam ni jàng amatul valeur waxuma leen ay bachelier waxuma leen ay maîtrisard waxuma leen ay licencié ay ñu am doctorat ñi ngi fii ci réew mi boo moytul liggéey sax da leen di xaw a të kon ngeen xam ne réew mu dellu na ginnaaw kenn jëlatul nit di liggéey ko ku ci am benn poste booy <coughs> liggéeylu dangay ngay woo sab jarbaat jox ko ko ndax kat nag bala ngaa laax jaay laax lekk fii ci réew mii lañ fi créé woon quota sécuritaire fii njàng mi toll quota sécuritaire ko fi indi quota sécuritaire nag expliquer woon naa leen ko fi ñu def examen bu jaar yoon ñu tànn ci aslëf dem ba jamono ñu ne ña ñu jëloon doyul dañuy wut quota buñ leen yokkee xanaa sax boo amoon liste d'attente nga dem ca liste d'attente ba jëli ca déedéet dañ koy xumtoo ci seen biir quota yooyu ñu séddoo ko li may wax nag ñépp xam nañ ko ba ci syndicaliste yi di cëppi cëppi di wax booba lañu rayoon njàng mi ay nit jënd nañ fi ay diplôme BFM ak BAC ay nit jënd nañu fi quota sécuritaire ci réew mii li may wax lu ma xam la crème bii bërki démb muy concours bu ñuy def am na yu bare yuñ cee wax yoo xam ne kenn mënu la ko wax ay nit ñu am sax ay li ay maîtrise ñëwoon nañu di def crème crème maîtrise kon ñu am BFEM moom waxaale wu seen wax bourse yi ñuy mayee ci réew mi muy bourse arab muy bourse français bu jëkk ay critères lañ ci daan teg ñi ko daan mayee critère d'excellence moo ci jëkk bi ci des critère social mën a jàng lool wala boog nga nekk ci kër yoo xam ne yi seen doole dafa jotul seen seen loxo jotul seen ginnaaw loolaa daan am ca jamono yu jëkk ya bourse yi doo ko sax dégg faf ba di ko di ko gis te pourtant seeni doom ci réew mi ñi nga xam ne ñoo ko ŋànk ñu waroon waroon ñoo yombalal seen doom yaa ngi ci école privée yi gën ci réew mi buñ ca pare dem jàngi à l'étranger parce que bourse yooya xam nañu ni muy demee France ca jamono ja ñuy gën di ndaw nun certificat d'étude brevet baccalauréat programme bi ñoo ko daan bokkale waaye ñu tàmbalee dugal ndoxum ci biir di jaayi épreuve di am fraude ay tricher lu ne am ca France xëy suba ne wettet moom ne leen dem leen ak seen bopp comme yoon nii ngeen di dundee réew moo xam ni dem nañu ba xam-xam amatul valeur amatul valeur parce que njàng mi amul issue kon da ngay dem wuti leneen lu ko gën a gaaw mooy lijjanti àgg nañu ba ci alal kenn du ko liggéey dañ koy lijjanti réew moo xam ni kersa ak jom jeex na tàkk tàkk gis ngeen ko fii bërki démb yàggul waaye yàgg ngeen koo gis nag ci internet jigéen joo xam ni pooj yaa ngi ca biti jigéen joo xam ne am na koy fecc ma nga ànd ak moroomam fecc bay ñori ay ay ay ay ay taatam ku génn ubbi sa gémmiñ wax musiba naaru laay ay saagante xasante ŋàññante amatuñu ndoxu bët ay gune yu ndaw sax dañ leen di génnee ñuy rega joo ko taasu di wone sa doom joo xam ne ji ci ñetti at ñeenti at la am ngor ne mër dem yoonam moom rusuloo fen rusuloo wor rusuloo wax ne maa waxoon lii waxatuma ko alal noo ko mën a amee rek baax na noo ko mën a amee baax na noo mën a amee ay daraja rek baax na sutura moom dàq nañ ko mu jaar ci frontière ba cëppeelu dem yoonam ñu ngi fenal sosalante di tiiñalante di sosalante di fenalante di wuññeente di xasante ku dàq saaga sa moroom ne Ismaïla Yaasin lii lépp mbokk yi réew mi mu nekk ku yebu defar say bagaas te jéem a set boo amee benn posé boo mën a jaar dem ca ndax su fekkoon ne sax lii ma leen wax lépp dafay am ci réew mi te mu am ay citoyen yoo xam ne bëgg nañoo yeewu nga ne waaw ñi tax ngay jéem aslëf di jéem mel na dañoo gumba tëx loo seen bopp yi dara neewu ci ñi ca des ni ñàpp àddina rekk moo tax bëgguñoo xippi am ñoo xam ne ñii ku leen di fen ak di leen nax di leen réerantal di leen gëlëmal loola moo leen neex ñi ci des nag ñoom dëkkal ci woyaan yalwaan toroxlu cogg lii moo tax mu metti koo ci waxal mu ni loolu la yàlla bëgg loolu la yàlla namm ndogalub yàlla la nañu muñ dina mës a jeex bëggoo mbir yi changé ngay muuroo sa benn sagar nga xam ni loolu ñu wax euh, euh, euh, politique de l'autruche mooy baa bànjooli bu doon daw nga koy dàq jël jëlee bopp bi dugal ko ci pax li ci des <laughs> jébbal na la ko bopp bi bu la gisatul rek yaakaar na ne rëcc na loolu moo fi nekk fen yeeg nax yi fi mu ne boo taxawoon ne leen ay fen la ki nax yaakaar jooju nar a tas ci ñoom moo tax bëgguñoo dégg say wax lii nekk ci réew mi mbokk yi ay nit ñu jàpp leen def leen ay xar jaxase seen xel ngay ngay nangu loo xam ne lii demul ba lees koy war a nangu asgor du ko nangu ku am jom du ko nangu ngay toroxlul nit koo xam ni kii yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mësta jëflante ki noonu nawloo leen te ndaxam bu doon gënante diggante ñaañu moom yonent bi ak saxaaba ya lii la ñii nga topp di dang-dangi gënee àggu fa waaye yonent bi mosu leen a tegi tànk mësuleen a teg lu jaaduwul nawloo ay nawloo la leen defoon bañ nañ ko ba ay saxaaba la leen tudde ay àndandoom yow ngay rëpp rëppi di daw li nga leen di defal doo ko defal yàlla mi la bind réew moo xam ni mi mbokk yi ñi fi gën a ndóol ñoo fi dàq caaxaan ñi fi gën a ndóol ñoo fi dàq caaxaan mel na ndool gi dalay ñoddi ci ay caaxaan loolu ñu wax opium du peuple opium moom waxoon naa leen ko fi mel na ñu tox yàmbaa ndax fàtte seeni problème mel na fecc mi ak woy yi ak tëgg gi daf leen di fàtteloo làmb ji daf leen di fàtteloo footbal bi daf leen di fàtteloo moo tax ñi leen yilif ñi leen jiite. di leen ko yombalal ngeen di làmb di football di commentaire di saagante di fecc di critiquer tiktok bi ak a arrangé waa <laughs> waa nguur ndax da ngeen may nit ñi jàmm koo gis rek ma ngay tiktok te lu ngeen yor yàq ko yàq gaspillage la nga am néew na bari na boo gisee boroom alal néew na fu muy fowe alalam lii mbokk yi moo tax ma yaakaar ne la ma mbokk ma wax dëgg la daw dem du caageenu nag sax dangaa gën ñi ngay wax yàlla xam na ne sama kàddu gi du kàddu xaste ndax man gënuma leen waaye nag li ma yëg ci sama yaram bokkul ak li ngeen di yëg looloo moo fi ne au moins yow nga sori leen nekkoon ci meneen réew sa téléphone nga fexe ba mu bañ a jël lii ngay gis ci réew mi nga juddoo yaroo fi màgge fi bëgg mu gën ci réew yi ngay gis lu ñaaw bés bu ne di ko dégg waaye nag mbokk yi bu fekkee ne am na lu mu gàtt-gàtt ay doom ak i jarbaat ak i xarit ak am di jàmm ak i soppe ak sa njabootu bopp gi nga xam ne ñooy sa responsabilité directe te màggaguñu loolu ku ko dundul yaakaar naa ne gisoo ndey joo war a jaamu gisoo baay boo war a jaamu da ngay jël say bagage te daw parce que fii moom gis guddi gi day gën di lëndëm rek jëmul bët set gën a lëndëm la jëm ñu am yaakaar ne suñu borom tabaraka wa taala dana yeble ku soppi lii te soppeeku fulla ak fayda nit ñi deltu ginnaaw kenn ku ci ne ñu ne la dëjj fa nga war a toog toog fa regle bu ko defee réew mi changé asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.